عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي طالبي بكي جلدي يب الشيخ محمد المنتخى ميلين دي فوين منانا خمجن نبيس بوتا دبو ماغ بوبو خمنا موي كيفانا جيروم يتي خمنا جرين جم بيس بوبو خمجن ن ساسو خمين نينكو يجوب ديكو واجل ñaari sëriñ bi dana am kaddu yoo xam ne da koy jëmale ci mboolem talibi yépp dama ko ci mboolem juddit yëpp soññi fàttali sant ñetti yëf yooyu mooy li nga xam ne saa su ne moom lay jëmale ci bokk taalibe yi kon noo ngi ñaan bokk yëpp ñu déglu taataan te xam ne lépp lu bàyyi ko ci moom rek jëm si ci nun loolu mi ngi mel ni taw bii di door a noppi ci nun noonu la la demee njëriñ la noonu la demee ci ñëpp kon noo koy déglu. gën moom mi ngi gën a nuyu mbooloo mi yëpp ñi ngi fas yéene teewlu ni ko Moustapha Diatra waxe fan yi ñu jublu ba ci fukki fan yi ak juróom-ñett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 jàng xasaayit feek bis ba sunu yitte yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ku man na nga def sa yitte yëpp na nga ci jiital jàng alxuraan jàng xasida ñi nga xam ne dañuy kuréel nañ ca nekk seen kem kattan ñiy durus nañ ce nekk seen kem kattan lépp lépp lépp lu ñu jubloo ko sante sëriñ santale ko sëriñ bi ak sant ak sant jëmmi sëriñ bi ci boppam sant ko jëmmi mu jooju moom sëriñ bi loolu mooy li ci gën a am solo loolu li ci dolli ko nag ñun ñëpp. gën a jëfandikoo. gën a teggiini taalibe. teggiini ci suñu bopp. ci suñu bopp. ak mboolem gan ñi fi ñëw. ak mboolem gan ñi fi ñëw. na ñun ñëpp nañ jëfandikoo teggiini taalibe. suñu digganteeg sunu bopp. digganteeg mboolem gan ñi fi ñëw. suñ digganteeg mboolem gan ñi fi ñëw. loolu. loolu yi lu ci munta ñàkk la ndax teggin mooy li gën lépp loolu alhamdulilahi rabbil alamin ku ne xam na ko ci nituk sëriñ bi moom teggin kon nanu maase nun ñëpp di ko def jëfandikoo ci suñu diggante di ko teeroo it gan ñi la dolli ci loolu nag nañ ko doon waxee ci gannaaw rek or mooy dëkk bi or dëkk bi na ko ñëpp na ko ñëpp bàyyi xel te xamne dara jitu ko or moy dekk bi moy ormal serigne bi ku ormal dekk bi ormal serigne bi kon nag ormay dekk bi nañ ko baye xel bu baakha a baax ci waxtu mu mën don rawati na fan yi sam war moy dekk bi dara jiituwu ca ndaw ñi ndax ñoom ñooy yaakaari ëllëg yi te it lu ñu mën a yëngutu yëngutu ci sëriñ bi moo ko gën ci ñoom kon ñoom ñoo war a def seen bopp sax kon ñoom ñoo war a def seen bopp sax ñoom ñoo war a ndaw yi ñoo war a sàmm dëkk bi lu fi sëñ bi bëggut lu ñu fi gis war nañ ca def seen yitte te boole koog yar ak teggin ñoom ndaw ñi ñoo war a sàmm dëkk bi ci lépp man na maa yem foofu Cheikh Bass eggale li ci des li ma ta wax lépp jox nañ ko ndigal mu wax ko nañ góor gi góorgóorlu ci cant gi rek góorgóorlu ci sàmm orma ji loolu rek la bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkin ci ndigalul sëriñ bi ci kàddu yu tedd yi nga xam ne yëkkati na ko léegi muy kàddu yoo xam ne matale na sëkk te jot na sëkk kon liñ ci dolliwaat tuuti mooy fàttali rek bis bi ni ko sëriñ bi waxee léegi altine fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar moom lay doon incha allah mooy bis bi nga xam ni ci la ñu war a amal màggal gi kon ak sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal ñëpp ginnaaw bu mu ko yëgalee ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi di njëbooru sëriñ Tuubaa gépp ak mboolem ñi nga xam ne seen maam ya Serigne Touba moo leen defaroon bayu ci kenn ba wàcc ci taalib yi nga xam ne ñoo seenu njaboot nga xam ne bis bii ñoo koy def ngir jëfe ndigalu Serigne Touba ginnaaw bu loolu jàll it mi ngi koy yëgal di fàttali ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal lislaam yëpp kon sëriñ bi nee na mi ngi leen koy fàttali fas ko yéene ànd ni mu ko daa àndee génn yéen di fàttali tuuti rek na ci bis bii nga xam ne mooy. bisu magal gi nga xana moy bis bi nga xamne amuñu luddul mom ndax moy bis bi nga xamne bu Serigne Touba ci geejgi kon tay kenn du gore kenn du mom sopp kon bis bii moñu ñu suñ bop kon Serigne bi ne mi ngi koy ñep di xamle nit yalla yep bis bi nga xamne ci la len euh, suñ borom tegum natu wala ci sabab sa taxamu teg ko. li ci ëpp ci koy jeexal boo xoolee yonent yàlla Yuusuf am na tom mi ngi tàmbaloon ci gént inni raaytu ahada ashara kawkaban wa samsa wal xamara raaytuhum li saajidin waaye ba natu bay jeexit mi ngi jeex ci gént ci firi gént suñ borom doo ko xamal xam-xamu firi gént wa qaala maliku iitooni bihi falammaa jaahu rasul qaala rja ila rabbika fasalhu ma baalu niswati lati qataala aydiyahunna ba ci mujj ga mu wax ne qaala ij'alni ala xasaa'ini al-ardi inni xafisun alim kon foofu la nattu bi jeexee boo xe boo xoolee yonent yàlla Moussa bi mu gënee àdduna wa awxayna ila ummi Moussa an ardihi fa iza xifti alayhi fa alqihi fi ljam wala taxaafi wala waaye ba nattu bi tàmm da ko wax ne ko ci géej gi waaye bi nattu bi jeexit mooy bi nga xam ne Firawna sonal na ko fa atbaahum firawnu wa junudu baxyan wa adwan xata isa adrakahu alxaraqu qaala amantu annahu laa ilaha illa si amana bihi banu israil rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam itam nattu bi mi nga tàmbale woon ca Makka ca Kaaba ga muy jule yéefar yi di ko fekk di ko fitnaal waaye bi muy jeexee ci fatu Makka foofa la taxaw di wax ak ñëpp di ko dégg ku faaru Makka yëpp ñëw sukk jëbali ci moom Sëriñ Tuubaa yi yàlla def bis bii ci la nattu bi tàmbali woon mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci mbakki baari mu dem ngir liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ay at yu bëree bëri nag mu juge fa ba dem gànnaar ba jëm ba dem ci yéen ba ñëw njaareen ba am fa lu ma juróom-ñaari at ba 1918 ndax nattu bi daa saa su waxtu bi accès lu ko ma sante ci nattu rek bu del siwaatee ñu teg ko mbooleem lu ñu toll ci nattu ba ci at mujj fa nag sëriñ bi du ko fuglu ak di ko waajal suñ borom xamal ko ne nattu yi jeex na ak pay ci des ba adduna di tukki itam nan nattu yi daa demee rek pay gi ne lay demee saa su agsiwaatee luñ la masaan jox ci ci ci ci ci xéewal rek dañ la dañ joxal lu ko ëpp kon bis boobee nag ci la Serigne Touba digle ci 1918 ci la xëy xam leen ne suñ borom xamal ko ne nattu bi jeex na bu agsiwaatee na ko ci ñëpp sant la yàlla. li tàmbalee ci ginaar ba ci gileem kon loolu mooy bis bii nga xam ne ci lañ tàbbi ba yàlla def mu agsi mooy biss boo xam ne nag lépp lu ñu am rek ci ko amee kon sëriñ bi ne mi ngi ci soññ bokki taalibe bi yëpp ñu gën koo fonk te xam ne boo xoolee ci mbindi sëriñ bi fu bari sëriñ bi wax na ko fa fustu la daa galwa wa inda ba afali ma bihi uniru kulla ma afali ci la suñu borom leerale mboolem palaane palaane yëpp ci àdduna waxaat na it ne alaana lil quluba quluuba wal abdaana man qaada lii fii baladil buldaana kon wane na ne màggal gi adduna sépp danañ ko ci aussi kon loola rek mooy li agsi ni kon sëriñ bi ne ngi ci soñ ñëpp ngir xam ne màggal gi moom borom defaral na ko boppam bërëb aajo ju fajoo lu tàbbi ci biir ñaan ko nangu la na ko bëggee saa su agsee ndax waxoon na ne àjjana amuti bis waaye buñ demee ba ëllëg képp koo xam daa nga sonn ci sama bi bii bu agsiwaatee da ngay xéwal guddal ko ci yow kon nag loolu lu ci waay def rek sabab mu koy defal kon nag ñu ngi ñaanalaat bu baax sëriñ bi mu yàgg fi lool te ànd ak ba yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéey sintuwa Tuubaa te itam jëpp weesu liggéey sëriñ loo ko mën a ñaar loolu loolu ngërëmu loo dégg mu ne la amin ngërëmu sëriñ Tuubaa rek ko kon nag ñu ngi koy ñaanal ngërëmu sëriñ Tuubaa yi nga xam ne kenn nattablu ne am na ko yàlla na yàgg lool ci barke sëriñ Tuubaa ndax lu fi gën a rek mu nekk sagub يانو مرت نفجن نعم ديك سو الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسمن الله عند جوالي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري بأهل بدين الأسود كدري